ñu baal ma rek la ma bañoon li ñuy dal àjjuma bi passé dalaat ñu ñu mos ci rek jox euh, Seydi Yaqub Seydi Ayub tabaarakallaahu mu Ayub mooy Yaqub rek mm-hmm. wa min waraay Ishaq Yaqub ndeysaan tur bu neex nga yor Ayub sa turandoo lu ne daj na ko ci yàlla ñun mm-hmm. ci yàlla Ayub mm-hmm. moo tax it am na ci lu ne lu ne am na ko ñii urkut birijlika haada muxtasalun baaridun wa sharab hmm? urkut birijlika haada muxtasalun baaridun wa sharab xam nga yonent yi yàlla tudd ci alquran ñoo ëpp doole yonent yi yàlla tudd ci alquran yonent yi yàlla tudd ci alquran ñoo ëpp doole yeneen yonent yi yàlla tuddul ci alquran ndax alxuraan tax ak rasulillahi miñ jaar ci làmmiñam ah jazakumullahu xayran walaw laa fadlullahi du foofu lay ñemoon tombee naag loolu allahu akbar allahu akbar mhm. ñu ngi yemoon ci baada auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim hmm. fi suñu borom di waxee ne képp ku tuumaal sa jabar njaalo da ngay indi ñeenti seede boo ko amut nga waat ñeenti waat foofu lañ yemoon ba waat yee jeexee amee ñaan nañ ci yàlla musal ba waat yee jeexee nag yàlla ngi ci teg ne mu ne walaw laa budutoon walaw laa billaahi buduloon fadlullaahi ngeneel ak yàlla ci yéen walaw laa budutoon fadlullahi ngënale gu yàlla gënale ci yéen ngir li ngeen di xeetu yonent bi hmm. aleykum ci yéen wa rahmatuhu ak yërmandeem hmm. ah hmm. mu ne waan na allah naka buur yàlla tawaabun aji nanguwaan tuub la nangu tuub la moom yàlla xakiimun ko xereñ ci bindam bi la ba xam ki tuub mu jéggal ko gis nga bàkkaar lu mu réeré boo ko tuubee rek yàlla baal la ko ah, nabbi ibaadi anni ana anni ana alxafuru rahim waaye wa anna azabi wal azabun alim waaw laa taqnatu min rahmatillah mhm. inna allaha yaxfiru zunuba jamian mhm. innahu wal xafuru rahim waay waay nañ am yërmande ci suñ biir yàlla yërëm nañu ba noppi mhm. mu ne inna alladina ka gaañoo nga xam ne jaawu ñoo dikkee bil ki ci fen yàlla mën a wax mu ne ñooñakat bu li buñ leen yéem osbatun mbooloo lañ minkum yu bokk ci yéen nag jullit ñi yàllaa ngi wane ni duma tëb tëb signalé ñan la waaye dinaa leen jox ay précision yu ngeen xam ne ci seen biir lañ bokk du jug ku jóge ca àll ba moo ko wax yàlla ne déedéet minkum ci yéen lañ bokk ci yéen lañ jóge xam nga min kum ji ñaar lay firi ci yéen lañ jógee waaye génn nañ ci yéen ah ku tooñ li soxna yonent bi nga sosal ko ne dafa njaaloo loo fay defa bokkatoo fa di ah jeex na ñaari piri la am ci yéen lañ bokk waaye génn nañ ci yéen moo am na wax joo xam ne sëñ Mor Diop a koy wax démb. Hmm. ku ko wax génn nga ci lislaam yàlla na ñu yàlla musal. islam nag chariatul islamiya sayyidatuna Aïcha ma dikkee bul dem de am na ñoo war a yóbbaale. sayyidatuna Aïcha nee na moo bari xam-xam. Ah. nee na foo dégg osbatun juróom-ñeent lañ. Hmm. nee na duñ ko weesu mukk mu juróom-ñeent lañ. ak ka wax ji jógee ca moom muy fukk tax borom daara ji bu leen woy eh sëñ Souleymane a ngi fi kañ ba moo tax borom daara ji ba muy woy kaay toog fii feeñ nga ba noppi moo tax borom daara ji ba muy woy woyam wa usbatun la wax bañ bañ xasee yonent bi salaay sallam ba mu koy woy nu mu woy lu mu wax. fa tabbat yadaakum ayyuhal usbatu lati looloo lay doon waaye duñ passé juróom-ñeent mu su ma nukkisu wala ruusi moo cee topp dañuy wéet diisoo ko wax ko génn nuur waaw waaw moo tax mu ne usbatun minkum mm-hmm. ñoo sos sos wu rëy wii fen fen wu wii suñ borom nag ne yiw woo gis xàcc woo gis wërsëgu waay la mm-hmm. laa taxsabuhu du foofu la bu leen jortu lii am ci sayyidatuna Aïcha fenn wu toll nii laa taxsabu bu leen jortu ne yéen jullit ñi charran lakum lu bon ci yéen la bal li fi nekk huwa moom xayrun lu baax la lakum ci yéen ndax borom pas-pas yi seen pas-pas daf ciy dolli ko ña cay alko alko hmm? li yahlaka man halaka an bayina wa yaxya man xayya an bayina jeex na bal huwa xayrun lakum suñ borom nee na lu baax ci yéen la ñu ne ko lu tax mu ne li kulli imriin du foofu la damay wax rek waaye li may wax yëpp gisatu mu ko sax. jërëjëf mooy sore sore ba boo yéexee. laay ji da lay rëcc waaw kañ. li kulli imriin mu ne kenn ku nekk ci yéen jullit ñi. minhum ci yéen maktasaba la fàggandiku ci wax ji rek lay am minal ismi ci bàkkaar ku ca wax dix dix ngay am ku ca wax zéro ngay am ku ca wax un un kenn ku ne lu toll ni lan ca wax nga ciy am yàlla ne kenn wala taziru waziratun wizra uxra ca beneen saar ku ca waxul dara yi doo ci am dara moo tax ña ca waxul dara nag bal huwa xayrun lakum ñooñu yiw la ci ñoom ku mel ni Seydina Omar eh, ak saxaaba yi ci des yi mel ni moom Seydina Omar bi bi ndaw li njëkkee ñëw ci moom naa feq bu mag boobule bi mu ñëwee ci moom wax ko ko Seydina Omar xam nga lu mu ko tontu ah wax nga dëgg waaye sa ndey defoon na ko diw <laughs> loolu la ko mu ne i Omar da dof man sama yaay mu ne ko waaw ah, noo nangoo sa yaay set te ummul mu'miniina taq yaa bon ndeyi jullit ñëpp nga nangu mu taq te sa ndey mucc yaay kan bu ko defee nga randatu kenn ñemeetu koo wax wax ji xam nga bari ku lay wax musiba yaa ko encouragé li Abdou Latif Guèye daan wax nee nit day ñëw di la nettali ci ne nga naa ko loolu uhm, wóoloo ko boo demee ba wóolu ko nag uhm, mooy dool nii pour ma mën a participer. nee na bu yeggee ba ca euh, rakk ja nag. ne la yëgoo li shérif def nga ne biiral na di <laughs> xamoon naa ko ni mu bëggee jigéen commencé nag yow it. mbetetetetetetetetetetet Abdoulatif nee na booy dem bàyyee ko cinquante bàkkaar yóbbu cinquante cent cent la da ngeen cent la da ngeen koy séddoo moom cinquante yow cinquante ndax yaa ko ubbil sa nopp soo ko ubbilatoon sa nopp femm ko du dem eh, te jël sa gémmiñ li ngay wax ci ustaz Ayuba yëpp du dëgg xaw ko ci moom koo ko wax ñaari yoon du la nettaleeti ay nit bu ñëwee di la nettali nga jox ko sa nopp bi muy wax a wax a wax ba pare nga gëm ko yaa ko tef da nga naïf yéen kan ñi moo ci ñeme toog ki man di ma nettali ci nit kenn sañu ko balaa ngaa pare ma fël sa gémmiñ wax la musiba bu day ni ñey dootoo ko dolli wala déet waaw doo ko dolli waaye nit bu ñëwee di la wax ci nit safaan di toj na kër gi nga naan luy kër gi yàq na dëkk bi nga ne luy dëkk bi lakk na dëkk bi nga ne luy lëkk bi mu tojal la ko ba jeex nga naan a ah, yal na yàlla musal ci loolu mooy ànd nga ci boo ko xamoon sax ne ca pat rawati nag ba nga ca xamut dara Haji Souleymane ñu ngi lay ziyaare bu baax baax fi nga toog nag sori na ñëwel ci wetu Oustaz Abdoul Aziz kañ kon xam nga lii lu lay jàngal <coughs> ba tey li sëriñ Mor Diop doon wax démb mooy ñëwaat nitu yàlla yi ñuy xas ak saaga ci la bokk de foo toogee ñuy xas nitu yàlla yaa ngi ci biir soo ca participer di nga ca am soo ta participer wutit di nga ca am hmm. ah waaw. Cheikh Seydi Ahmad Tidiane am na benn taalibeem bu toog ñi di ko xas nu mu tuddati borom xam-xam bu mag la si bi am martaba bu day bu rëy ci Seydina Cheikh waaye bés na toog ñuy xas Seydina Cheikh tontuwul jógut dem dafa jékki-jékki rek am lu ko tël mu jóg ba ca ko doo toogaat ci suuf Seydina Cheikh feeñu ko ne ko lu tax ñu di ma xas jógoo dem te tontu woo ca la jëlee paralysé ba nim faatu bi mu waaj a faatu la ko wax taalibe yi Seydina Cheikh ne ko lu tax ñu may xas fi nga toog tontu woo te jógoo ah loolooy wax bi sa sëriñ buñ koy xas ñaar rek nga war a def tontu wala nga jóg dem soo ko defut alquran la yàlla wax ne fala taqudu maahum isan misluhum yàlla ne soo jógu tontoo yaa ñoom a yem te gis nga sos ni mu bone yonent bi yeggoon na ci xaal ni meloon ak sayyidatuna Aïcha ba yegg na boo ko nuyoo mu ne ana jigéen ja bu jaar ci tuyam. Mm-hmm. mu jóg mu ne ana seen kooku. waaw ah, kay fa tiiki wallaahi. Mm-hmm. Mm-hmm. naka seen kooku. naka seen ñigéen soosu. nga xam ne nit yàgg na yàq. pendant quarante quarante jours. am sa am Aïcha indi Aïcha am Aïcha indi Aïcha ba yonent bi jël jóg ne ko daal xam nga li wax ji mu ne ah mu ne ko demal sa kër bàyyi nga toog fa. Mhm. ba wax ji leer. Mhm. fayut de. jigéen ju baax du fay. Mhm. ñoxor njaay rek nga yenu say bagaas ñàkk nga fay da di. bu yàggee ku la miin yab la. fay fay a gën a yées ci. mu takk li mam ci bagaas bàyyi la ca des dem kër Seydina Abubakar toog. wallaay. 40 jours boo ko mënoon bëggoon dégg tey danga nga naan ala in. journaux yëpp di ko ala in. am Aïcha indi Aïcha am Aïcha indi Aïcha Aboubacar buñ ko nee waxal mu ne daf ma jege ndax maa ko jur li ma mën a wax daal mooy xaw ma ci moom lu ñaaw waaye lu ma ci wax rek ñu ne li ma ko juró tax waaye li ma leen mën a seedeel daal ba muy gone bi fii mu toll xaw ma ci moom lu ñaaw te yaakaaruma moo ko def Eh, yàlla mën a muñ dafa dinniirlu yàlla munta muñ dafa dinniirlu parce que xam na ne kenn du ko rëcc sabuur firiwut muñ ci yàlla bu dee ci yàlla dinniirlu nga koy firi dinniirlu mooy ku mën a faj mbir te ne pat xam nga da lay jaaxal mm-hmm. bu la gone tooñee mm-hmm. ñaawal la eh, Moussa Sidiya xam nga gone yi dañ koy def yaa ñaaw golo la dàq gone yi léegi la ko gone yi bàyyi sax waaye dañ koy def da ngeen di romb ci mbedd rek di la ñaaw di la koy woo ba mu ñëw nga may ko tàngal ne ko nuyul ma sa bàyyi ne ko diw la mu ngi lay nuyu boo yeggee ba ci sa baay boo ko waxee lii nga def dana la ne doom mooy téye sa nopp kaata la beneen da dof. a doy Musab Musab bi nga xam ni moo tuumaal Aïcha dundam yëpp Abubakar moo ko yore woon xam nga Abubakar ko amoon alal la Musab mhm. di mbokkam la si ndeyam mbokk miin la si moom mhm. mu jël ko en charge di ko jox dund bëccëg ndar kam lu nekk waxtu bu nekk Musab jël Abubakar jël ko en charge mhm. mu ñëw mu waxal lii doomam Abubakar nee na bis boobu dafa aalu mu ni dagganaa yëpp yenente bi woo Abubakar Siddiq ne ko léegi nga rikkeeku ne ko si lan mu ne ko musaab bi nga dagg li nga ko doon dafa xanaa yàlla taxul woon hmm? aaya bi sax wàcc na si hmm. xool li ma tax àdduna dafa doy waaru koo xam ne yow da nga yor di ko dundal géeru dundam yor ko léppam mu xëy waxal sox doomam wax bu mel nii hmm. mooy li yonent bi wax rek ittaqu sharra man ahsanta ilay wax boobu ni ma frappé yàlla rek ko ko xam xadis la ittaqu charra man ahsanta ilay salaay salaam nee na na nangeen ragal ni ngi ñi ngeen di defal njëkk ndax saa su ne lu ñaaw ci ñoom lay jóge góor gu baax gii alaaji Ousmane géey bàyyi imam musaa géey moo ko waxoon fii ci amoo kaat fii la génnee àddina fii la dëkkoon sama ginnaaw kër moo ko wax mu ne foo dégg soxu njël mhm. ku leble woon njëkk ñu koy feyee njëkk di la <laughs> sëñ Souleymane mm. góor googu ni mu bare woon xam-xam mu ne foo fekk soxu njël mm-hmm. ku leble woon njëkk la ñu koy feyee njëkk di xam nga coup d'état yëpp fajar lay doon. te ña koy def say àndandoo compagnon yoo àndaloon la. maa la ko. ñoo war. moom mi alkaati la woon xam na li may wax. Mm-hmm. moo tax nag. ki ngay teral saa su ne boo yeboo rek nga bàyyi xel bul yaakaar ci moom benn teranga bu jógee ci moom yonent bee ko wax nee na saa yooyu séenu séenul ci moom musiba am en général koy dimbale sëñ Mor Diop koy wax démb moo bari xam-xam démb la ñuy tojal sëñ Mor mu ne xasad ñetti xaaj la ñetti xaaj mu ne benn bi Oustaz Ayuba day sol rafet man Chérif Ibrahima ma gis ko xam naa ne lii rafet na riche na sama xol baa ngi dëgg waaye waxuma ko ba way njëkk mu ne booboo gën a wayaf nag mu ne beneen bi xam naa ko rafet na ne naa ko lalal naa la mu yëkkati xaalis jox ma ne ma laal li naa mu dëdd ma ne nangamtaan ja <laughs> dégg nga wax bi te fekk teral nga ko ba ba mu kontaan waaye mu dëdd rek daggal la saaga woo xam ne da ngay boo ko déggee sax yow da nga naan déedéet mënta jógee ci Chérif Ibrahima ak fi ma jaar ak moom loolu warul mën a nekk te fekk nekk na bu yàgg mu ne ba ca mujj nag moo tax yàlla ne min charri xaasidin isa xasada day dem ba mënatu koo nëbb mu feeñal ko jël paaka wala pistolet ne la tëll wala mu gàddu làmmiñam dem ca rajo ba maa ko gis muy doxaan te fekk gisalu la dara xamalu la dara yëgul dara ci yow la ilaha illallah waaye ki ñaan nga la mënatul nëbb mu feeñal ko moo tax yàlla ne min charri xaasidin isa xasada gis nga foofu yàlla dafay ñaag nit ki ñetti ñaag mm-hmm. falaq ak naas yi ni ko yàlla wàcce sax dafa doy waa moo tax muslaay dëgg la mu tax awisa tey ni biñ ko tuddee moom dëgg la dangay xool ni ko yàlla wàcce xul auzu bi rabbi naasi Cerno Yaxya li moomu ko tojaloon dawaa un li kulli daa in alaaji bu saaxo moom la daan fajoo moom ma ko wax ci gémmiñam bàyyi bu saaxo mu ne mosta garab saa yu demaan ba yaram sutaate rek mu ëf falaxeeg naa si ci ndox naan ko keroog bi mu tëddee ci lal ñoom xaasim doom ji bëgg ko indil docteur mu ne ah kon ma saalit di ba dund bi am at yi ma ma indil docteur tey ngeen bëggal ma koy indil bàyyi leen ma damay dem alaaji Maalik a ngi nii di ma jël si mook bàyyi li saaxoo ngi nii taxaw loo ci mën waaw mu dem ci mu ne nga xool Cerno Yaxya li moom ma ko tojal mu ne danga naan xul auzu bi rabbi naasi min charri l waswaasi l xannaasi alladi yuwasitu fi suduri naasi min al jinnati wa naas xul auzu bi maliki naasi min charri lwaswaasi lxannaasi alladi yuwaswisu fi suduri naasi min aljinnati wannaas hmm. mu ne qul audu bi ilahi naasi min charri lwaswaasi lxannaasi alladi yuwaswisu fi suduri naasi min aljinnati wannaas mu ne nga door a ñëw na qul audu bi rabbi naasi maliki naasi ilahi naasi min charri lwaswaasi lxannaasi hmm. alladi yuwaswisu fi suduri naasi min aljinnati wannaas mu ne yàlla dafa njëkk a ñaak boppi nit ndax moo gën a dëgër bopp yuqu gaag yuur ga yëpp mu yulli ko mu ne lu fay des dara mu ne mu ñëwaat ci dënn bi dóor ci dënn bi cuqati la woon ca dënn ba mu jeex mu ne mu ñëw ñaag tànk yi nit jeex tàkk nit boo jëlee bopp bi jël dënn yi jël tànk yi lu ci des hmm? hmm? bi rabbi naas maliki naas ilaahi naas wa fi samaay ilahun wa fil ardi ilah Cerno Yaxya nit ku doy waar la woon nit ku doy waar la woon Cerno Yaxya li wallaahi wa rabbul arsh wa fi samaai ilaahun wa fi l ardi ilaah sama lu la féetee koo rek sama la tudd waaw ah, déet Cerno Yaxya la de keroog lim ma wax ci falax ak naas yi allahu nuuru samawaati wal ard jërëjëf barki démb benn sëtam a ngi fa ñëw ndeysaan min nii la fa jógee an Maristes. mu ne man li ma metti rek xaw ma sama maam te mooy maamam mu ne mësu ko gis. te ki ko jur moom ak ki jur soxnaay Cerno Yaxya ñoo bokk ndey ak baay. ndey ak baay. te ajjuma bii paase moom lay wax Abdul Aziz bi ci jumaa ji laa génn rek. mënatuma ba 3 heures maa ngi ci bunti jumaa ji mënuma bouger ndax nit ñi. yow laay seetaan yow laay déglu bii yow laa doon seetaan yow laa doon déglu ba moom ca ful ba la bokkoon. ne ma foo dëkk fii ma wax ko ko mu ne pourtant sama kër a ngi nii man ci ginnaaw de. ki ko jur ak ki jur soxnaay Cerno Yaxya li ñoo bokk ndey ak bàyyi te mosul teg Cerno Yaxya li bët. nga xam ne lenn licence la ma ne ko man nag 92 93 94 95 97 amul bés bu may xëy midi lay déparé fii amoo dox ba ca ba caaroy aller retour dama ko daan dox mosuma ko dugg oto. allahu xam ngeen kër Thierno Yaxya lii. mosuma dugg oto bu may dem kër Thierno Yaxya diiru 5 ans. aller dama koy dox maag Abdoul Hamid saar ñoo daan ànd. balaa ñuy dem dañuy jaar ci kër Thierno Yaxya Thierno Moussa Kelli ndax boo yeggee Thierno Yaxya daf la naan ndax jaar nga ci Thierno Moussa nga ne déedéet mu ne wëññeekul kooku nit borom ndigal la. ñu wëññeeku ñëwaat ci Thierno Moussa Kelli mu jigi nag da ngay xam booy dem foog nga jaar fa boo yeggee Thierno Moussa ne nuyul ma waliyu bu mag bi Thierno Yaxya dal di ne moom ca aalam malakut mu ne ma kuñ fa fonk la de hmm. mu ne ma kuñ fa fonk la baaba alhamdulilah Cerno Moussa Kelli ci laa doon wax nag kilifa googu ma fa àndaloon hmm. ci affaire yu yi ma kii doon ana Issa Faye mu ngi fi mu ne ma ànd kilifa googu dañ ñëw toog ba si àjjuma ñu ngi ko fekk mu ngi añ mais kii mu ne yaa ngi ànd ak koo xam ne mu ngi maye wird te amul ijaaza mu ngi doxaan mu ngi jabaru jàmbur bi billaahi wal kitaab keroog dama rus ba mel ni ginaar gu tooy Cerno Moussa moom boo fay dem booyee boo nga waaj noo mel dina ko wax Thierno Yaxya kay ngay ñëw mu xam lépp ne patt moom xanaa kañ xaal bi not ko bu ko xaal bi notee nga léeg nga dégg mu yëngal bopp hmm. nga xam ne ki nga àndal san bapa maa la ko wax Thierno Yaxya moom boo déggee mu naan hmm, rek xamal ne ki nga àndal yaa quelque chose léeg-léeg mu wax léeg-léeg du wax nag wax naa leen fi koo xam ne dañ ko jiiñ biira du nettali woon naa leen ko jiñ ko biir mu ñëw ne Cerno Yaxya dimbale ma ci man laalu ma jegewu ma ndax xam naa dafa bëgg ma takk ko rek Cerno ne ko ci kaw condition dootoo takk beneen jabar fekk sa jabar a ngi dund sa aw bi ci ngay dee loolooy ga loolooy condition yi mu ne ko nangu naa jaral na ma ko bu yeboo ndax lii moom xaw ma fu ma jëm ak moom Cerno ne ko bul ci wax nag boo déggee ne am na doom rek ñëwal ki may wax mu ngi fii dakaar mu ngi fii géejawaay gi deewul toxuwul mu ngi fii patron bu mag la xale bi am doom mu ñëw wax ko Cerno Yaxya Cerno xëcc ko am lu mu ko déey xaw ma nag lu mu ko déey ne ko jógal nga dem ba ci hôpital ba mu tëdd waxal sage-femme bi koo fa fekk rek ne ko mu génneel la liir bi nu nga fa fekk ay nit. buñ la ko génneelee xam nga xale bi day yaakaar ne day ñëw pour nangu ne moo ko jur. xam nga ku wasin ka nga tuumaal ñëw seet si xale bi danga naan kon nangu na. mu ne ko génnee ko ci fuñ ne fa mu mën a nekk rek génnee ko ti uuf ko. li la mën a wër rek sëggal ci nopp bi ni ko Cerno Yaxya lii nee na nga wax ku la jur. laa ilaaha illallah. kenn gis loolu. mu sëgg ci nopp ndeyjoor bi ne ko Cerno Yaxya lii nee na nga wax ku la jur. avec haut-parleur ñëpp di ko digg mu ne diw moo ma jur diw mii juruma mu ngi ànd ak sama yaay bés sàngam ci palaas sàngam ñetti yoon la ànd ak moom ci laa sosu bàyyi leen kii juruma ni ma ko xamee laaleen leen xamee ndax maa ko yóbbu ci Cerno Yaxya moom moom fii koo fi dégg muy wax man ak Badara Mbay ko dégg muy tudd Cerno Yaxya li maa Badara Mbay a tax ñu xam ko Badara Mbay mooy seule personne bu xamoon Cerno Yaxya li daan jaay yàpp fii ci pikin mu nga tey ca Jolof di taalibe Sëriñ Habib Si di rakku Alaaji Abdul Dabbaax ba ñuy nekk tuyaawoon ca kër sëñ Abib buñ ñu mësaan dem kër sëñ Abib moom mooy jiitu moom Badara ndax mbokk sëñ Habib la bi mu ñëwee Pikine nag di jaay yàpp bés mu dem ziyaare gi sëñ Habib sëñ Habib ne ko foo nekk ci dakaar mu ne ko Pikine mu ne ko fan mu ne mu ne ko Caaroy mu ne ko fan mu ne ko ci marché ba mu ne ko caaro yi mu ne mu ne ko am na waliyu bu mag bu dëkk foofu. dal di bind lettre jox ko ne ko boo demee nga ne ko sëriñ Habib mu ngi lay nuyu ndax xamante ni Badara Mbay nee na bi may jub ci kër gi balaa may xam cerno la ma ko nettali li tax ma dem ci cerno Yaxya mu may jub ci kër gi la ma ndaw gàttandu si ne cerno Yaxya li nee na naa yegg si te bu ma ubbi lettre bi ma sëñ Habib jox nee ma yegg si mu ne ma kii laa gëj a gis mu ne mu ne ko kii min awliya ilahi taala mu ne ko min mafatihul kunuz keroog la Cerno Yaxya li wax baat boobu ma dem mu répéteel ma ko mu ne ma ci alaaji Abib Si ma ne ko ah mu ne ma minal mafatihil kunuz te moo leen jiite keroog baat boobu la ma mu ne alaaji Malick amul doomam bu jiite wut ñëpp a jiite ku nekk fa nga nekk yaa jiite groupe ba mu ne ma mafatihul kunuz juróom-ñaar lañ alaaji Abib ba nekk ca bopp ba te mafatihul kunuuzi ñoom la yàlla di sant ñu séddale trésoru yàlla yi minal adam ilal azal ñoo koy séddale trésor yàlla yi laa la wax de li nga dégg yàlla naan wa lillahi xadaa'inu samaawaati ñoom ñoo koy séddale te juróom-ñaar lañ waaye balaa ñoo séddale ko yi ñoo leen di jox ndigal foofu la Cheikh Seydi Ahmad tiijaan yi potoxloo ba doon am ñaari maqaam yi ndax dafa ñaanoon yàlla bokk ci mafaatihul kunuz yi moom Seydina Cheikh ba muy jaamu yàlla te yeggagul ci maqam yi ndax dafa gis mafaatihul kunuz yi boobu seen cër rëy ca yàlla ndax joxe infaaq xam nga joxe ak dundal dafa bari tiyaabo mu gis ko nag ñaan yàlla bokk ci ñoom Seydina Cheikh bi mu ñaanee yàlla bokk ci ba pare nag gis ne aqtaab yee leen di jox ordul mu gis maamam rasulullah ne ko man mosuma nangu ku may jox ordul ci ñiy joxe ordul laa bëgg a bokk waaye man duma ko ñuy jox ordul maamam ne ko maqaam yi kenn du ko kimile da ngay nekk rek ma fàttewul kunus wala nga nekk ci aqtaab yi ñoom ñëpp ay xutbu lañ xam nga noo koy déggee ministre ak ministre d'état ñëpp a ngi ci gouvernement bi. waaye ministre d'état yi ñoo yilif ministre simple yi. <laughs> ñoom bu président du ñu laaj audience. déedéet <laughs> ministre d'état yi ñoo yilif ministre yi te ministre premier ministre mënu koo sanctionné. amul ci moom accès. premier ministre amul ci amul accès ci ministre d'état. moo tax ñu ci bari di xëcc pour nekk ministre d'État dañuy bañ ko leen yilif ñoom directement seen chef président de la république la moo leen di jox ordre moo leen mën a dàq moo leen mën a bañ a dàq waaye premier ministre mënul ci ñoom dara président assemblée nationale mënul ci ñoom dara ndax ministre d'État la huwal aqtab lu faatihul kuduus yi mooy ministre portefeuille Seydina Cheikh gis na ñële ñooy jox ordre ñi mu ne maamam bëgguma ku may jox ordre mu ne ko nooy def mu ne ko kimile ñaar yëpp maamam ne ko kenn mësu koo def mu ne ko yëg naa ci yow loo bëgg sa borom def ne mu defal ma ko minal awwal ilal axir mu njëkk koo nekk mujj koo nekk ndax naa ci yow loo bëgg sa borom def rasulullah defal ko demande yàlla acceptel ko ko ne ko moom rek laa ko may waaye mayuma ko keneen moo taxoon mu bokk ci ma mafatihul kunuus yi bokk ci aqtaab yi nekk xutbul fardul jaami di diriger ci la demee ba jeexal maqaam boobu jox ko Muhammad al Misri mu jox ko Aliou Haradim Barada. Mm-hmm. moo tax kooku la ñuy wax xilaafatul Haaruniya. Mm-hmm. Siddiqul Akbar wala mu doon mu Seydina Cheikh. Hmm. te Seydina Cheikh a ngi dund. boobu yéeg na ci maqaamatul xatmiya katmiya moo supérieur la le mu jox ko lii loolu taxu ñu jóg. baba ah. boobu taxu ñu jóg moo tax. dama lay woon pour doole li Thierno Yaxya li wax. Badara Mbaye boobu nag mooy sabab. ñu xam Thierno Yaxya li. ci la Cerno Yaxya nag ubbil ñu boppam koo fa dégg maa ko fa yóbbu sëñ Mor Diop mi maa ko fa yóbbu Cheikh Ibrahima Sall maa ko fa yóbbu gaa yi ngay dégg yëpp maa leen yóbbu ci Cerno Yaxya ndax man ku ma bu ma mosaan xam nit yàlla rek comme nii may def sëñ Mor rek ku ma xam ne la demal ci sëñ Mor wala ma jàpp sa loxo yóbbu ci sëñ Mor mboolem wali yi boo fi gis ba ci ñoom Oustaz Malick Guèye euh, euh, sëñ kii Ndong sëñ Moustapha Ndong altu gañik billaay ñëpp maa leen fa yóbbu wala boo dégg ci kóoru kaara bi jàpp naa ay nit yóbbu fa. ah waaw dégg rek. démb bu ñu ci sëñ Mor sëñ Mor wax na ko. sëñ Mor ça fait vingt six ans. bi xamante ak léegi. vingt six ans ci ren. léegi yow déggoo ma ne na sama doom bi mu jox tarixa bi démb mu ngi am 23 ans te xama xamanteeg sëñ Mor jiitu na juddam sëñ Mor a ko tudd moom moom mu doon jox tarixa bi démb. ndeyam sëñ Mor a ko julle bi mu génnee jeex na kon damay wax rek ne ñun ñëpp duñ bëggee ci yàlla dara fokk ñu jaar fi mag ñi jaar wa illa duñu am ci yàlla ji dara. Hmm. waxu kese la ñuy am waaye duñu am yàlla hmm. koo fi dégg nag Cerno Yaxya hmm. Badara Mbaye tax ñu xam ko grâce am Badara mbay Aline Badara mbay ku baax la boroom xam-xam la waaye dafa futteeku woon di jaay yàpp ci marché bi di taalibe Sëriñ Habib Sëriñ Habib fonkoon ko lool te Sëriñ Habib ku ko xam te Sëriñ Habib nee na Cerno Yaxya li nee na xam nga nu mu xamanteeg moom mu ne ay wali yoo doon xuloo ñaari wëli yi ñoo doon xuloo Cerno Yaxya li atte leen te wëli ñaari wëli yooyu sëñ Habib mooy kenn ki <laughs> mu ne dañ daje ca Côte te boobu Cerno ngi fii ci Dakar waaw <laughs> mu ne ñu am luñ jëflante dikkale ne ko maa la gën a yàgg ci yàlla xam nga sëñ Habib daf bari woon lu muy dem ko di waa sëñ Habib ne ko da wax rek loo mën ci yàlla waa ji yël benn gattax dóor ko muy Mercedes mu xëy suba ji ci jox soxlaam ba jant bi so mu ñëw na sëñ lii laa mën su ma neexoon ma def ko avion ut ay pilote ñu piloté ko mën naaw fu ma neex fay droit taxi yëpp ñëwaat toog bu ma paree yëkkatiwaat ko muy gattax tasarruf tasarruf loo ci mën mu ne sëñ Habib loo mën sëñ Habib ne ko am nga dugub mu ne mu ne ko damay indil ma dugub mu indil ko loxo dugub sëñ Habib jël ci ñetti pepp waaxu ba ci suuf wàqi tuuti suul ci ñetti pepp yi suul su dugub ji jël satala sim doon jàppe sotti ci yor kurusam am lu muy wax mu jebbi ci saa si am lu muy wax dem màgg am lu muy wax dem focc ci def tum palpal am dugub am ay pepp ñor ci saasi Sëñ Abib dagg kook paaka ne ko lii laa mën wala bi ne ko dangay ngay wax rek lii baax na waaye maa la man man mi dox ak oto réew mi yëpp yow lii ku ko gis car na mu ne ko wali bu ñu wax car na Yaxya laa bëgg ñu mu àtte ñu car na ne ma ñëw ne ko Abiba la mën mu ne ko lu tax nga wax ko mu ne ko oto amul roox te dugub dafa am roox oh. <laughs> jeex mu ne ko oto amul roox te dugub dafa am roox. allahu akbar. sab asanaa bii la. fi kulli sunbulin. mi ata xabbatin wallahu yudaa'ifu liman yasha. jërëjëf ay dara. dégg nga wax bi. ok. Alaaji Malick moo tax Serigne Babacar si daan wax ne. ku dul man Babacar. Mm. sama rakk yee la man. waaw Cerno Yaxya li loolu la daan wax ku dul man Babacar sama rakk yee la mën boppam rek la ci sette te mooy dëgg de mooy waaja de moom kenn tolluwu ko fii alaajab doog dara jaam jure ji tolluwul fii sëriñ Babacar si sëriñ Babacar ak dara jaam jure ji tolluwul fii alaaji billaahi wallaahi tallaahi tolluwul Seydil Hadji Malick ki dagg daggu moom Serigne Babacar Cissé avec haute voix laa koy waxe te xam naa li ma wax dafa di nag ku la tuñ nga sot ko ne ko ñool ma waaye moo la tuñ bu la wàccee woon doo yëg wala déet Maodo tuñ Babacar moo tax Babacar ji wër àddina waaw waaye bu ko Maodo cëppee loon du dem ki la toj nag war nga koo sant. Ah, moo tax xasida bi mu yëkkati léegi bul woy bu ko waxaat. ca euh, Alaaji Mansour ah. ba muy woy baayam. la jaar ba mu nekk Serigne Maodo. Ah, hmm. hmm. mu dégg loolu. Ah, waaw waaye xam na kon mujj gi. waaw si mujj bi nag. Mhm. nee na nu mu defaat xëlwa gis Cheikh si la génn rek si la ko def xasidam bu rëy boobu. que mhm. hayyunun layyunun. Mhm. xalqan wa xuluqan. lahu mahabata sidqi. fi ma xayaahu. ñu nag wird wirdahul azim. la tajzar biza abada. alhamdulilahi ala cheikhu rabbaahu. foofu la ko Serigne Babacar wooyee. Ah, waaw mu ne nag baatinuhu baxrun. lahu madadun. madadun law saalal juudu xaqan. saxayaahu. wallaahi wallaahi ay dara karaar kara yow it day tabaarkalla ay dara ba muy xaleel la ko yaayam ne woon karaara. <laughs> yaa damay bañ sax waxtaan bi gën a gudd rek. waaye tabaarakallahu gis nga. yàlla li mu am ñépp mu ko dëxëñ ci biir mag ñi. ku bëgg dara ci yàlla di nga jaar ci ñoom wala doo am dara wax ju bari nag di nga ko am ndax yàlla ku lewet la ku baax la dana la mosal ay bong bong ki banaana nga yaakaar ne fa la yëf yi yem bonbon nag xale yee koy lekk. ak banaana xale yee koy muut rek. waaye am na lépp loolu. c'est pour les gosses. waaw. waaw. Mhm. adara bii mhm. ñu tëj Hadji Souleymane. waaw waaye daal li ma leen mën a wax. gis nga Hadji Malick. Mm. Seydul Hadji Malick. radiyallahu taala anhu. Mm. li ko yàlla defal. ngeneelu yàlla la ci moom ak fàgguteef way jur way jigéen jërëjëf jërëjëf loolu moom ñëpp a yem waaye dañ ko ko fàggul lu jiitu juddoom yàlla nangu ko xam nga lu yàlla nangu rekk am solo lu bari amul solo lu yàlla nangoo am solo Aminatu bintu Wahbin mm. ay nawleem la nekk ndooloon Makka mm-hmm. waaye mooy sempiraaye ji. Ah, loo ci mën moo neex yàlla. Ah, hmm? ah, waaw moo sempiraaye bi ne mënoo ci dara looloo neex yàlla. waaw kon yàlla li ko neex lay def seetul li neex nit ñi. ñëpp baax nañ waaye alaaji Malick yàllaa ko séddi li mu am. dëgg kon ñu jeexal wax ji ci. Euh, lim wax léegi looloo ko ñu taataaral ñu indi ba fii. Mm, ndeysaan ndeysaan. wa eh, li yonent bi wax rek. ittaqu charra man ahsanta ilay. wallaahi ndeysaan. kon li kulli imrin maktasaba min al ismi. Mm-hmm. rek. Mm-hmm. wa anna allaha du foofu lañ yemoon. waaw déet li kulli imrin. walladi tawalla kibrahu waaw walladi lahu azabun ana mus waaw kañ lahu azabun azim ñu ñu taxaw foofu yàlla ñu ci yàlla musal xam nga lu muy firi hmm. foo fekk ku rëy moom la safara di yóbbu moom la sëñ Abdou mu baax ma waxoon ne bu la kaamee waay lu fay des ca néeg ba mu ne ko bagage yu diis yi mu ne la diis moom euh, diig rek. diis moom diig rek moom diig rek. na dëgg. xam nga lu ci lu ci yàlla day jublu. bi wax ji amee. Mm-hmm. ñi nga xam ne teel nañoo tuub dellu ginnaaw. Mm-hmm. yàlla ne baal naa leen waaye ñu rëy nag. Mm-hmm. sax ca mbir ma. mu ne lahu adabun adim ña nga xam ne réye tax ñu sax ca waladi tawalla kibrahu ku mel ni walid ibnu mughira ak ni ñoom yàlla ne ñooñu lahu adabun adim ba léegi fii soo tooñee waliyu te delluwoo ginnaaw wala hu adabun adim waliyu kenn du ko tooñ jazakumullahu xayran haydara marhaban waladi tawalla kibrahu hmm. Hmm? minhum walahu minhum kon du ñëpp mu ne wala yi gaay ña nga xam ne wala wala yi ka nga xam ne baal leen ma sharxa mu ngi nii sharxa bi lay xool tuuti rek moom lu ma ciy xool waaw ah, wallaay noonu rek la. Mm-hmm. baal leen ma rek dafa am lu ma ciy xool. Mm-hmm. ndeysaan. wallaay li li dafa bayaan lool. Mm-hmm. est-ce <laughs> sayyidatuna Aïcha mu bari xam-xam. ak bari xam-xam. man yi mu wax rek laay xool. yeneen yi sax du ma ko xool. <laughs> ak ak kéemaane. tuddee turu Aïcha bu mu neex. radiyallahu taala anha. Hmm, Abdullahi ibnu Abi. jazakallahu xayran. gis nga. wala wala fa hmm, aleykum. macha allah أعطيه الشيخ دخل إن شاء الله شكرا لكم ما شاء الله Abdullahi ibnu Abi moom la Seydina Aïcha Seydatuna Aïcha wax mu ne ci ñi yàlla rëbb ba dugal ko safara ci la bokk Abdullahi ibnu Abi wa huwa Abdullahi ibnu Abi kon rëy baaxut rëy rëy rek boo demee ca laxdar yi nitu yàlla yi nee nañu nit mën na làmboo bàkkaar bu ne nga defal ko intervention mu am fatxu yàlla baal ko ba mu des rëy bàkkaar bu ne nit mën na ko làmboo nga defal ko intervention waliyu bu ne defal ko intervention ba yàlla baal ko ba mu des rëy rëy rek la yàlla mënta ku gàddu rëy nitu yàlla mënu laa fexe fexe fexe ba defar la. rëy yàlla nañ ci yàlla musal. rëy baaxul. wala zi tawalla kibrahu minhum kon du ñëpp. ñenn ci yéen la woon yàlla ne ñooñu day lahum ñel na leen adabun mbugal adimun bu mag waxul alimun de adimun bu mag jërëjëf Haydara sadaqallahu alazim wa ballaga rasuluhu alnabi almustafa alkarim sayidina muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabi wa xulafai ah. falaxe bi. waaw bi nga firi ci Thierno Yakhya. naasi bi laa firi waaye falaxe bi firi wu ma ko. waaw loolu nañ bàyyi bi beneen yoon. xaj na tey de. déedéet Alaaji Ayub day wax. Chérif ay jiite gee su paree bu Alaaji Ayub pare dañuy déedéet dañ lay jox nga nuyoo rek dangay nuyoo rek ku ñëw ci nit nuyoo rek loolu rek la. waa ñëwul dara déedéet. Ah, ah. waaw ah. waaw. fala xeeg naa si fukki aaya la ak benn muy huwa allahu akbar mooy xul huwa allahu ahad rek mm-hmm. xul huwa xul neel huwa falaxi ak naasi <laughs> xul huwa falaxeeg naa si jeex na <laughs> la Maodo Maodo Maodo day waar rek sëñ Maodo yóbbu nga koy wax démb